Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net. Macky Sall tey trahir nañ peuple Sénégal waaye trahir nañ ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñuy wax askan wi ni Macky sàll xam na ni bilan sept ans yii mu fi def bilan bu négatif la parce que njiit la boo xam ni amul xam-xam mais njiit la boo xam ni xamul fu muy jëmee réew mi mu xam ni askanu Sénégal désavoué na ko askanu Sénégal wan na ko ginnaaw mu décider en complicité avec conseil am beneen mandat par tous les mains quitte à ce que même mu salfaañi àq ak yelleef yi nga xam ni moom la sénégalais yi am loolu moo waral. ñun ndaw ñi bokk ci opposition bi ñu gis jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel ñu taxaw tey di woo askan wi waaye di woo particulièrement ndaw ñi ngir ñu taxaw xeex ngir démocratie bi nga xam ni moom la suñu réew doon xeex ngir xeex bi nga xam ni ku mel ni Malick Ba moom la doon xeex xeex bu mel ni ki nga xam ni Mamadou Diop moom la doon xeex ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni dañoo xeex ba daanu ci xare bi ñuy woo ndawu Sénégal ni tey amuñu droit trahir xeex boobu nga xam ne suñu ay devancier xeex na ko moo waral ñu leen di xamal ni dañu war a jóg nekk benn taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall waaye jàkkaarloo ak conseil constitutionnel politique bi nga xam ni moom la fi Macky Sall teg ñuy fàttali askan wi ni leen jafe-jafe yi ci réew mi commencé wul tey Macky Sall ma ngi ko commencé ba mu organiser référendum 2016 ba ba nga xam ni ca la commencé dugal lépp loo xam ni. jaarul yoon ca la commencé dugal lépp loo xam ni mën nañ ko considérer comme mbirum caay-caay waaye yamul foofu bi mu ca jógee mu organiser législative yi nga xam ni ñépp jàpp nañ ni moo gën a bon ci histoire Sénégal parce que ku ci ne gis na résultat yi nga xam ni ca la am sans oublier ba mu fi tegee loolu ñu wax acte trois de la décentralisation pour xeex ay adversaires ginnaaw loolu noonu nag ñu gis Macky sàll mu dagg loo xam ni Sénégal daf ko amoon parce que Sénégal ci consensus lañ ko doon yor Sénégal ci waxtaan lañ ko doon yor moom Macky Sall mu ni moom mooy buur moom mooy mi du wax ak kenn faalewul kenn dagg loolu nga xam ni moo nekkoon consensus bi nga xam ni moo fi amoon teg en place benn plan machiavélique boo xam ni benn objectif rek la am mooy élection yi mu jëm du am benn adversaire képp ku mu jàpp ni war nga ko mën a sonal mu écarter la par la justice wala mu indi yeneen moyen bu ci mel ni parrainage bi ñu gis ni Macky Sall moomu nga xam ni tey moo nekk ci bopp réew mi mu utiliser un militant de l'APR koo xam ni bu bëccëgee mu dem toog conseil des ministres bu ngoonee mu dem secrétariat APR dénk ko élection yi waaye jox ko police bi sant ko lenn mooy ku jóg dóoral ku jóg gazel ku jóg tëjal muy Aly Ngouille Ndiaye mais Macky Sall moom utiliser waat kooku ak ay moyens pour écarter ay adversaires politique ñuy xamal conseil constitutionnel ni ko lii mu def tey maanaam yokkal boppam ay prérogatives doonatul kuréel goo xam ni mën nañ ko jox confiance doonatul kuréel goo xam ni mën naa jël décision bu ñu engagé ndax tey dafa mel ni rek kuréel la goo xam ne lu fa Macky Sall indi baax na lu fa keneen indi baaxul moo waral ñu koy xamal ni tout de suite ñun la jeunes de l'opposition jeunesse su réew mi décision bu fa mën di génn après 24 février du ñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg parce que ña fa toog Macky Sall la ñu fa toogal ñuy jàpp ni moom Macky Sall ci plan bi mu teg bu ci jàllee ëllëg amul crédibilité amul euh, légitimité amul légalité te duñu ko reconnaître comme président de la République du Sénégal parce que dafa organiser dafa organiser au mu def élection mais dafa organiser sa réélection donc demee décision bu génne ci conseil constitutionnel ñun ndaw réew ñi dañ koy rejeter te du ñu reconnaître ka nga xam ni moo fay jógee loolu moo waral ñun ndaw ñi bokk ci opposition bi ñu fàttaliku kàddu gi François fanoon waxoon mooy ndaw ñu ci ne génération bu ci ne dafa am taxawaay bu ñu war a am ñaar rek moo ci am ñu taxawee ko nañ ko war a taxawee wala ñu trahir ko ñun nag dañu bëgg a bokk ci ndaw ñi nga xam ni lii suñu mission remplir nañ ko li ñu tax a jóg def nañ ko bi suñu réew soxlaa taxaw nañ xeexal ko moo waral ñu bëgg a taxaw jàkkarloo ak Macky sàll te ci xeex boobu nag amul dara loo xam ni mën nañ ko cee dàq ndegam moom moo mën a jël ay milis fay leen pour di leen dóorloo askan wi ndegam moom moo mën a jël police pour ñu dóor askan wi pare nañu xeex ak moom pare nañu jàkkaarloo ak moom bu jaree ñu bàyyi ci sunu ay bakkan pare nañu pour def ko ndax Sénégal jaral nañu lu ëpp loolu ñuy fàttali police su Sénégal di leen wax ni tey xaalis bañ leen di fayee sunu ay impôt la du xaalisu Macky Sall du xaalisu ay juróom seen rôle mooy protéger askan wi seen rôle mooy protéger sunu ay bien waaye waruñu nangu mukk Macky Sall di leen utiliser pour ñuy duma askan wi ginnaaw ba mu utiliser justice am di ci def lu ko neex ñoom police waruñu nangu loolu parce que dañu fi nekk ngir ñëpp loolu moo waral ñun ndaw opposition bi ñuy woo bépp ndawu Sénégal di woo bépp nit boo xam ni Sénégal moo la ñor bépp nit goo xam ni ëllëgu réew mi moo la ñor bépp nit boo xam ni jàpp nga ni Macky Sall ni mu yore réew mi baaxul ñu ngi lay woo ci ndaje mu am solo boo xam ne dañ koy woote àjjuma mu nekk marche national boo xam ne dina am fii ci Ndakaaru am ca Géejawaay am ca Rufisque waaye am ca Saint-Louis ñu génn wax ni d'accord ruñu ak Macky Sall ni mu yore réew mi na ñëpp génn xam ni Sénégal suñu réew la waaye ñuy profité ci occasion bi di sàkku ci Macky Sall ak justice am suñu ndaw ñi nga xam ne kidnappé nañ leen fekk ay ndaw 4 heures du matin seen kër jël leen fekk ay ndaw 5 heures du matin seen kër jël leen dañu jàpp ni ñooñu tey dañ leen a kidnappé dañu jàpp ni ñooñu tey dañu leen a séquestré moo tax ñuy sàkku dans les plus brefs délais sunu camarades yooyu ak fu ñu mën a nekk ci Sénégal nañ leen bàyyi loolu nag lu ñuy exiger la dans les plus brefs délais nañu libérer tous ces camarades pris en otage di leen réaffirmer sunu soutien di leen réaffirmer suñu engagement parce que Sénégal jar na ko te pour Sénégal ñun pare nañu pour xeex loolu mooy kàddu gi nga xam ne tey bëggoon nañu ko partager ak yéen ginnaaw ba ñu feddalee suñu kóllëre taxaw ngir Sénégal xeex ngir Sénégal Sénégal kese moo ñu ñor Sénégal kese moo tax ñu war a jóg ñun ndaw réew mi ak parti bu ñu mën a bokk ak mouvement bu ñu mën a bokk taxaw temm jàkkaarloo ak jimboori Sall mi nga xam ni dafa falu ba pare ni kenn du judd ci réew mi dafa falu ba pare ni kenn du ko remplacer moom Djimbory Sall moomu nag comme faale wuñu ñu nit ñu taxaw wan ko ni ko faale wuñ la maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw pour pour marche bi dinaa joxaatu seen wax ñuy xamal ñëpp ni li ñu war a def mooy déposer autorisation dugal nañ ko te sax ci régime bi ñu nekk kenn waxul autorisation déclaration de marche la def nañ ko dans les conditions yi ko loi waxee depuis altine kon nag incha allah ajjuma dinañu génn dinañu marché li ñuy wax autorité yi rek mooy ñun def nañ la ñu war nañu def la leen war incha allah bu dee fii ci ndakaaru ñi ngi bëgg a déparé buntu université avenue Cheikh Anta Diop jeexale ko buntu RTS foofu la marche bi di démarrer vendredi ñuy ñaan ñépp ñu ñëw parce que la ñu war a def mooy déposer déclaration def nañ ko loolu la ñu yoon sant te def nañu loolu sunugal24.net soyez le premier à être informé sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur si si même sunugal24.net